yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi ñaan suñu borom boole ñu ak njëggal ñun ñëpp bi barakati Seyxuna Seex Ahmadul Xadiim ñu dellusiwaat ci jotaay yu tedd yu barkeel yi nga xam ne baaxoo nañ koo amal ci barabu tedd bi di jumaay Tuuba muy jotaayu xam-xam jotaayu jaamu yàlla niñ ko baaxoo defee bis bu set ci weeru koor bi di dalal ay boroom xam-xam yu mag di jël ay tomb yu am solo di ko waxtaane ngir di gën a dollante ak a gën a yeetante ak a fàttalente ci li ñu bokk ñun ñëpp nga xam ne moo ñu fendi muy lislaam ci jaamu yàlla ak lépp lu yéwénal sunu dund gi yéwénal koo xam ne day dëppoog lislaam tey jii nag ñu fas yéene ànd ak kenn ci boroom xam-xam yooyu di sëriñ Cheikhouna di ku ñëpp xam ci waar wii di jottali xam-xam ak yaatal ko ak yee doomu aadama yi te lépp mu di ko defee ci toolub Sëriñ Tuubaa tey jii moom lañ fa yéene àndal ci benn ci tomb yu am solo yooyu nga xam ne dañ koy jukki bis bu set Sëriñ naa nag du aajo woo xamle bu baax ndax ñépp xam nañ ko ñëpp it xàmmee nañ ko ci liggéey bu mel nii Euh, tomb bi mu fas yéene ñun tey tomb bu am solo la ñu di ko tënk ci azulmu wa anwaahu wa adraaru fil fardi wal mujtama tooñ xeeti tooñ yi am ak loraanga yi nga xam ne tooñ dana ko jur ci nit ñi ak ci askan wi muy tomb bu am solo bu mat a waxtaane ci jamono ji ñu toll moo tax bokk na ci li tax daayira Muqaddamatul ma jël tomb boobu mooy jamono dafa laaj ñu waxtaane ko ndax day mbir moo xam ne dafa yaatu ci jamono ji lool mu bari di ko toggoo di ko def te duñ ko yëg am ñu koy def di ko tey mu bari loraange yu mu jur ci suñu dund gi lool mel na ñu bari yewwuñ ci ñu bari xamuñ ko nañ ko war a xamee dëgg-dëgg wala xamuñu lor bi ci nekk nañ ko war a xame dëgg-dëgg moo tax bu ñu toppee sëñ Cheikh naa tey ci waxtaan wi danañu ci dolli bu baax danañu ci fàttali bu baax sëñ Cheikh naa nag waxtaan wi daf koo tënk ci ay tomb yu toll ci juróom-benn tomb tomb bu njëkk bi mooy danañu xamal lan mooy tooñ baat bi lan la lan la wundu mooy baatu tooñ lan la wundu lan mooy maanaa bi danañu leeral tooñ nan la ko alquran jàngalee la alquran jàngalee tooñ lan la ci alquran wax ci ay atte ak ay tëkkoo ñu leeral ci lislaam aaya bi nga xam ne lislaam daf koo aaya aaya bu tar tooñ atte yi ci wadd ci lislaam ci hadis ci waxi borom xam-xam yi danañu ko leeral danañu leeral itam maanute ak yàlla gi ndax tooñ ku ko wax wax maanu ndax mooy safaanu maanute danañu leeral maanu gi yàlla maanu nga xam ne du jege ak tooñ fenn danañu leeral itam façon tooñ yi am maanaam xeeti tooñ yi am yépp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 bokk yi ginnaaw bu ñu sante sunu boroom subhaanahu wa taala julli ci ab yonentam sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu ci nuyóob lislaam bi ñu sunu boroom tànnal subhaanahu wa taala muy asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di leen ndokkeel ci weeru tedd wi ñu nekk di ñaan borom bi subhaanahu wa taala ni ñu ko tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim ñu eggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin di ñaan borom bi subhaanahu wa taala li mu digg ci koor rawatina yërmande ji ak njëggal gi ak goreel gi ci sawara sunu borom defal ñu ko te defal ko bépp jullit di ndokkeel waa daaira muqaddimatul xidma niñ ko baaxe defe nga xam ne ramadan bu nekk ñu amal jataay yu am solo yi ni ko sama mbokk mi waxe léegi di jataay yi xam-xam yoo xam ne dañuy tànn ay tomb yu am solo ci lislaam di ko nafar ku ne xam na ni kuy topp jataay yi gis nga ni ñu ngi jariñ bu baax a baax askan wi rawatina ëtt bii nga xam ne fi lañu koy defee kon ñu ngi ndokkeelaat waa daaira bi di ñaan borom bi subhaanahu wa mu gën koo sàmm gën koo téyel boppam ni ko sëriñ bi waxe tomb bi ñu tànn jagleeloon ñu ko ngir ñu war cee def gëstu war cee waxtaan ak bokk yi mooy li ñuy wax tooñ ñu tëggoon ko nag ci al zulmu wa anwaauhu tooñ ak xeeti tooñ yi am waaye wa adraaruhu ala al fardi wal mujtama lor yi nga xam ne dana dal ci kaw tooñkat moom mi jëf jëf ji waaye lor ji nga xam ne dana ko jéggi nag ba dal ci askan wi nga xam ne ñoom la nekk ci seen biir ku ne xam na ni mbugalum suñ boroom subhaanahu wa taala yàgg naa wax ne wa ma hiya min alzalimina bi baid yàlla moom mbugalam soriwu tooñkat yi waaye nag léeg lekk tooñ dana sabab mbugal moo xam ne mën naa wàcc ba laal ñu tooñut kon loolu moo waral mu am adraar yoo xam ne day dal ci kaw ki ko def waaye mën naa dal ci kawit askan wi mu nekk te ñoom laalewuñ dara ak tooñ gis nañ ni lislaam dafa yittewoo lool jëmmal ak maandu wisaare ko ci kaw suuf jotale ko aar ko ba nga xam ne nit dana mën a ne ci kaw suuf di dund dund koo xam ne dana am kaaraange ci wet yépp ndax bokk na ci li saxal kaaraange waaye tooñ bokk na ci li na saxalit kaaraange ñu gis ne lislaam dafa yittewoo jàmmaarloo ak tooñ xool yi nga xam ne moo koy sabab mu saafara ko waaye di leerali danger bi nga xam ne nekk na ci tooñ ni ma ko waxee léegi ci kii tooñ ak ñam nekk ci seen biir suñ borom day wax ci alquran ne day leen moytandiku fitna ndax du yam ci ka nga xam ne rek ca moom la fitna ja bàyyi ko tooñ day tàbbi ci biir loolu bu ñu xoolee xiyam islaamiye yépp day mel ne dañ koo sos ngir taxawal àdduna ci kaw balaasub maandu waaye taxawal àdduna ci kaw xettali nit ba nga xam ne du jeng jëm ci tooñ googu nga xam ne du jural nit lu dul ak texeet yi fii ci adduna waaye du ko jural lu dul ak perte ëllëg yow mal xiyaam kon lislaam yitte woon na lool ak maandu sax ci kaw suuf waaye yitte woon na lool ak tooñ naax saay ci kaw suuf mu mel na nag baat bi buñ delluwaatee ca fañ ko tibbee ci làkku arab day baat boo xam ne am na ci boroom xam-xam yi ñu wax ne rek maanaam zulmu tooñ mooy nga teg mbir foo xam ne du barabam nga teg mbir foo ko war sa teg am na ñoo xam ne dañoo wax ne loolu mooy tooñ ba tey am na ñu dégg ni mooy ñàkk yam fa nga waroon a yem fiñ ñu la loo nga romb ko jàll loolu mooy tooñ am na xadis boo xam ne ci alwudu yonente bi alayhi salaatu salaam day wax nii fa man zaada wa naqasa faqad asaa wa zalama boroom xam-xam yi dañuy wax ne yonente bi alayhi salatu wasalaam fa man zaada wa naqasa faqad asaa mooy ñaawal na ay teggiin ci bàyyi gi bàyyi sunna ñaawal na ay teggiin ci ñàkk a gim ñàkk a ci teggiini sharia waaye tooñ na boppam nag ci wàññi gi wàññi ab tooñ na boppam ci wàññi gi mu wàññi ab yoonam faqad asaa wa zalama buñ demee ci alquran dañu gis ne baat bii nga xam ne mooy baatu tooñ lim ko tudd néew na lum ko tudd ci biir téere bi ndax ñëw na lu mat ñaar téeméeri yoon ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar baat bi ñëw na ko ci alquran loolu nag li muy tegtale mooy bàyyi xel gu ko suñ boroom bàyyi xel ak yittewoo gum ko yittewoo ak danger bi nekk ci jëmmi tooñ ci boppam muy tawat ju naqaree faj nag tawat ju naqaree saafara waaye lislaam bi mu ñëwee di ñu jàngal naka lañ war a nekk ci kaw suuf sunu borom subhanahu wa taala njëkk mu ñuy digal ak maandu ak di ñu tere ak tooñ daf ñoo xamal ne moom yàlla ci boppam nga xam ne moom moom jaam ñi am sañ-sañ ci jëflanteeg ñoom nu ko soobee waaye téewul am na jëflante boo xam ne ci diggam ak jaam ñi da koo jàppe ak tooñ ba tax na mu wax ne moom dafa araamal tooñ moom ci boppam moom yàlla dafa araamal tooñ ci jëmmam nga xam ne yàlla du tooñ kenn boo demee ci alquran danga nga fekk waxiin woowu ñëw ay yoon dana ñëw lu mal juróomi yoon wa ma allahu yuridu zulman lil ibad yàlla bëggul di tooñ ay jaamam mu ne yàlla de ginnaaw moo moom ay jaamam nga xam ne kenn ku nekk ci ñoom sa alal sa moomeel la da nga ciy tasarruf nu la soobe nu la soobee rek nga jëfandikoo ndax sa alal kon yàlla jàng ak moomeelam lañ waaye nag bëggul di leen tooñ dafa am maandu gum doxale diggam ak ñoom goo xam ne jamono bu nekk ci la bëgg di dox boo demee ci xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom it mi ñuy jàngal di ñu wattandikuloo tooñ ginnaaw bi ko sunu borom araamalee ci boppam araamal ko ci sunu biir yeneen bi alayhi salaatu salaam daf ñu koy wattandikuloo moom it lu baree bari ci ay ahadis yu limu bokk na ci am na xadis boo xam ne day wax ne ñett ngi ñoo xam ne seenug ñaan sunu borom du ko récité seenug ñaan sunu borom daf koy nangu ka ca njëkk mooy al imaamul aadil imaam bu maandu imaam bu maandu lum ñaan sunu borom sunu borom def ko ku ñaareel ki mooy ki woor ba waxtu dog jot jamono bi muy dog lum ñaan yàlla sunu boroom du delloo ñaan googu loolu nag bokk yi jullit ñi mën nañ ci bàyyi xel ginnaaw bu ñu sellalee seen koor ba waxtu dog jot ñu xam ne waxtu woowu waxtu sunu boroom di nangu seen ñaan la bépp yitte bu ñu am rek ci jamono boobu nañ sendal seen yéene te ñaan ko yàlla te xam ne yàlla du delloo ñaanu jullit bi jamono boobu ku ñetteel ki mooy ñaanu ku ñu tooñ yonent bi alayhi salaatu salaam ku ñu tooñ ak ñaanam sunu borom du ko delloo dañuy jël ñaan gi ubbi bunti asamaan yi yóbbu ko ba ca kaw su demee ba àgg ca sunu borom. nee na sunu boroom ci boppam mooy wax ne wa izzati la na ansurannaka walaw baada xiin maa ngi giñ ci sama tedd nga ne danaa la dimbali yow mii nga xam ne kat dañu laa tooñ ak lu mu yàgg-yàgg sama ndimbal ci sa kaw rekk lay nekk kon kii tooñ nay bàyyi xel ne ka muy tooñ lum néew néew doole ci kanamam kàddu ya muy yëkkati di ko jëmale ci sunu boroom subhaanahu wa taala lu yàlla di bàyyi xel la am na beneen hadis boo xam ne yonente bi alayhi salaatu salaam da ciy wax ne dee leen wattandiku ñaanu ku ñu tooñ donte sax nag ab yéefar la donte ab yéefar la ittaqu daawata al madlum wa in kaana kaafiran fa innahu laysa duunaha xijaab nee na donte ab yéefar la ñaanam googu amul benn kiiraay buy dox digganteem ak boroomam kon ñi nga xam ne xëy na it dañoo nekk ci njuumte ba jàpp ne ku dul ab jullit tooñ ko moom garaawul nañ bàyyi xel ne tooñ suñ borom daf ko aaye ci doomu aadama bu mu mën a doon yonent bi nee na donte ab yéefar la bu ko tooñ te tooñ gi ngay tooñ ku mën a doon yonent bi alayhi salaatu salaam nee na ak lëndëm rek la lay jural ëllëg yowmal xiyaam ak lëndëm la lay jural ëllëg yowmal xiyaam nee na it na dimbali sa mbokk su fekkente ne dafa tooñ wala bu fekkente ne dañ koo tooñ am saxaabi yu bu ne ko yow yonente yàlla bi noonu de xam nañ sa mbokk buñ ko tooñee nan nga koy dimbulee waaye su fekkente ne nag moom moo tooñ nan nga koy dimbulee yonente bi alayhi salaatu salaam ne ko da koy tere ak tooñ xamal ko dëgg sa mbokk buy tooñ da koy woo ba mu ñëw nga xamal ko ne kat lii ak tooñ la méngoowul ak dëgg mu dellu ginnaaw ci loolu loolu mooy dimbali sa mbokk bu fekkente ne dafay tooñ kuñ tooñ neex naa dimbali waaye kiy tooñ moom noo koy dimbalee mooy nga fexe ba mu bàyyi tooñ rek mu bokk nag ci melo yi nga xam ne borom bi subhanahu wa taala daf koo melowoo te loolu di jëmmal tomb bi ñu bëgg a waxtaane muy ak maandu dafa bokk ci melow yi yàlla melowoo muy ak maandu te maandu mooy safaanu tooñ te ginnaaw dañoo wax ne tooñ mooy teg mbir fu mu dëkkut safaan ba di maandu mooy teg mbir fañ ko war a teg moo tax borom bi subhanahu wa maandoom googi mu melowoo tax moom du tooñ ay jaamam te it jamono bu nekk mu di ko feddali ci alquran wa ma ana bi zallamin lil abid man kat du ma tooñaa samay jaam moom yàlla du tooñ loolu nag day mel ne bu yàlla dee wane ak maandoom akum ñàkk tooñam am na ñun luñ ci war a jànge am na lu ñu war a jànge ci loolu ngir moom mooy ki mat ginnaaw yàlla rekk moo mat waaye téewul mi ngi wane ak maandu bu dox diggam ak ñoom di wane it wattandiku gu muy wattandiku tooñ ci suñ digg ak moom di ko feddli ci alxuraan ci barab yu bari di wane ne yàlla moom du tooñ bindee fii loolu ñun am na luñ ci war a jànge ñun ñi nga xam ne nag ci ak mata daanaka la ñu suñu borom bi borom xam-xam yi dañuy wax ne bokk na ci aaya yi gën a feddali ak a tegtale maandug yàlla gi ci diggam ak jaam ñi aaya boobu yi nga xam ne suñ borom da ciy leeral yàqu-yàqu yàqu-yàqu jamono li muy waxe ne zahara alfasadu fi lbarri walbahri bima kasabat aydi nnaasi li yudiqahum bad alladi amilu laallahum yarjiun lenn ci mufassiruna yi dañuy wax ne alfasad mooy aluqubat alilahiya mooy mbugalum yàlla mi nga xam ne da koy yabal ci kaw suuf mu war a dal nag ci jëmm joo xam ne yayoo na ko nga xam ne képp ku ko yayoo rek mu wàcce ko ci sa kaw te fekk la la yayale mbugal ma mi ngi sababoo ci ak mooy yàlla akuk tooñ nga xam ne fu ñu mën a nekk ci kaw suuf rek mbugal ma dana leen fi fekk am na ci boroom xam-xam yi ñu wax ne loolu mooy alfasad am ci ñoom ñu wax ne bi maa kasabat ay dinnaas mooy li nga xam ne nit ñi da koy dañ koy fàggu ci seeni loxo min zulmin wa taaddin ci tooñ ak jalgati kon yàlla lépp lu mu teg ci kaw nit buñ ko xoolee rek am na sabab boo demee ci tawba ci suratu tawba day wax ni fa ma kaana allahu li yazlimahum walakin kaanu anfusahum yazlimuun yàlla moom du tooñ waaye ñun ñooy tooñ suñu bopp moo tax boroom xam-xam yi dañoo séddale tooñ ñetti xeet am na tooñ goo xam ne day dox diggante jaam bi ak boroomam am na tooñ goo xam ne day dox diggante jaam bi ak jëmi boppam am na yit tooñ goo xam ne day dox diggante jaam bi ak moroomam jaamam jële nañ ci al imam muhammad bunu ali al mu wax ne tooñ ñetti xeet la zulmun laa yaxfiruhu llah tooñ goo xam ne sunu borom du ko jéggale ba mukk wa zulmun yaxfiru ak tooñ goo xam ne yàlla dana ko jéggale wa zulmun laa yadaahu llah ak tooñ goo xam ne yàlla du ko bàyyi dafa am ñum dox seen diggante mu war leen a àtte ca loola moo tax mu ne tooñ bi yàlla dul jéggale mooy ashirku billah nee na bokkaale yàlla du ko jéggale tooñ gi nga xam ne nag yàlla dana ko jéggale mooy tooñ gi nga xam ne nit def daf koo tooñ boroomam muy bàkkaar boo xam ne diggam ak yàlla rek la dox waaye doxul diggam ak mbindéef tooñ gi nga xam ne sunu boroom du ko bàyyi mooy tooñ gi dox diggante jaam bi ak moroomum jaamam kooku mu daayana la suñ boroom day seet àq ja ca war mu fay ko ko àq ji nga ameel jaam bi boroom borom da leen di àtte nga delloo ko àq jooji tooñ gi yàlla dul jéggal suñu borom wax na ko ci alquran inna allaha la yaxfiru ay yushraka bihi bokkaale moom li fekk guddi ko ci tuub tuub bu sell delluwaat ci wéetal yàlla lu may nekk nga ca ba xëy faatu sunu borom nee na du la ko jéggal wa yaxfiru ma na dalik nag mooy lu dul bokkaale bàkkaar boo xam ne sa diggante sa borom rek la dox bu mu mën a doon yàlla mën na la ko jéggal ci coobareem ci lu dul sax nga koy tuub tooñ gi nga xam ne nag nit ñi dañ koy tooñ seen boroom dafa bari ay xeet du nañ ci léegi ashirku billah sunu borom moo waxal boppam ci alquran ni inna shirka la zulmun azim tooj bu mag a mag la bokkaale yàlla ñàkk a wéetal yàlla wutal ko ndend yàlla nee na tooñ bu mag a mag la kon ñi nga xam ne dañoo nekk ci kuréelu shirk muy bokkaale yàlla ñooñu ñi ngi ci tooñ bu mag seen diggante ak seen borom waaye bokk na ci tooñ gi nga xam ne day dox diggante jaam bi ak boroomam jalgati day tali sunu boroom yi fi sunu boroom yamlu nga ñàkk faa yam maanaam nga jéggi fam la yamloo ci mépp mbir mu mën a doon sunu boroom moo waxal boppam ci alquran ni wa man yataadda hudud allahi fa ulaika humu zalimun ñi nga xam ne dañuy jéggi frontières yi sunu boroom yi fa mu leen yamloo dañ koy jéggi jàll nee na ñooñu ñooy ay tooñkat waaye bokk na ci tooñ gi nga xam ne day dox diggante jaam bi ak boroomam ñàkk a nongoo génne asaka ci sa alal loolu ak tooñ la goo xam ne nit ki mën na ko bañ a tooñ moroomum nitam waaye mi koy tooñ yàlla subhanahu wa taala yonent bi alayhi salaatu salaam day wax ci hadis ne walam yamnau zakata amwalihim illa muniu alqutra min alsama wa lawla albahaim lam yumtaru nee na ñàkk génne asaka dana jural aw askan dem ba sunu borom bu dutoon ak bahima yi dootul taw dootul taw nga xam ne ci bekkoor rekk la ñooñu di nekk kon ñàkk a nangoo génne asaka ak tooñ la ci diggante nit ki ak boroomam waaye bokk na ci tooñ gi nga xam ne nit ki daf koy tooñ boroomam ñàkk a nangoo attewu ci sharia ñàkk a nangoo attewu ci sharia loolu ak tooñ la diggante jaam ak boroomam ak firi kóllëre digganteem ak boroomam yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na walam yanqudu ahda allahi wa ahda rasulih illa sallata alayhim aduwan min gayrihim fa axada baada ma fi aydihim nee na aw askan dey suñu firee kóllëre gi dox seen digganteeg seen boroom firi kóllëre gi dox seen digganteeg yonente bi alayhi salaatu wasalaam sunu borom daldi xiirtal ay noon ci seen kaw noon yoo xam ne dañuy bàyyi ko feneen suñu boroom xiirtal leen ci seen kaw ñu jël lañu am te duñ ca man dara kon firi ci diggante nit ki ak boroomam dafa bokk ci tooñ yi nga xam ne day dox diggante nit ki ak boroomam waaye bokk na ci tooñ yi nga xam ne day dox diggante nit ki ak boroomam li ñuy tuddee li ñuy wax shurbul muskiraat lépp lu nit ki di jëfandikoo te muy taq te mu koy tàqaleekum xelam te koy màndal loole lislaam daf ko koy aaye su ko defee nag déjjërle jëm ca loola dafay tegtale ak tooñ diggante nit ki ak boroomam am na xadis boo xam ne imran ibnul xusayn moo ko nettali wax na yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na في هذه الأمة خصف ومسخ وقذف saxaaba yi ne ko loolu kañ lay doon yow yonent bi yàlla bi mu ne ida daharat alxaynaatu walmaasif wa shuribat alxumuur buñ demee ba caaxaan yi bari buñ demee ba fecc mi bari buñ demee ba musique bi bari buñ demee ba naan sàngara bari su boobaa kat nañ xam ne ñetti xeeti mbugël yi sunu borom mën na ko wàcce ci xeet wi te ñetti xeeti mbugal yooyu mbugal mu ci nekk alquran nettali na ko suñu boroom mbugaloon ko ñu ñu jiitu woon boo demee ci alxuraan da ngay gis ne sunu boroom mbugal na ci masx mbugal na ci xas mbugal na ci xaf masx mooy soppi melow nit ki jox ko weneen melow bu gën a ñaaw woowa am nañu sunu boroom soppi seeni jëmm def leen ay golo boo demee ci alquran da nga ko ca fekk fa qulna lahum kunu xiradatan xaasiin loolu ñëw na ñaari yoon ci alquran muy waa banu israil ñi ñu doon tuddee asxaabu sabt ñooñu sunu borom alagoon na leen ci soppi leen ay golo yonent bi alayhi salaatu salaam nee na bañ demee ba caaxaan yooyu nag lëmbewaat jamono lëmbe aw askan sunu borom mën naa wàccewaat loolu ci seen kaw bokk na ci tooñ gi nga xam ne day dox diggante nit ki ak boroomam rafle maanaa rafle wu nit ki ñàkk suturaal ay awraam ak tooñ la digganteem ak boroomam ñàkk suturaal awra nag mën naa am ci ñàkk sol dara waaye man naa am it ci sol loo xam ne mënta suturaal say awra te nga xam ko bàyyi ko ci sol lu gàtt lu mënta suturaal say awra wala sol lu yaraax lu mënta làq say awra wala sax raflewu ci boppam loolu ak tooñ na diggante nit ki ak boroomam waaye bokk na ci tooñ gi dox diggante nit ki ak boroomam li ñuy tudde njaalo góor ak jigéen jaxasoo ci anam goo xam ne du anam gu dagan loolu ak tooñ la goo xam ne day dox diggante nit ki ak boroomam am na hadis boo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam da cay wax ne buñ demee ba ñaawteef yooyu fés nit ñi di ko dund te amul dara luñ ciy làq sunu borom dana wàcc ci seen biir musiba ak balaa boo xam ne wàccewu ko woon sax ca ñu leen jiitu woon kon buñ demee ba jamono toll foo xam ne ñaawteef yooyu gis nañ ne mi ngi tisaaroo di bari di lëw nit ñi di ko njéeméerlu maanaam di ko dund di ko fésal te nëbbuñ ci dara nañ séentu musiba moo xam ne ña ñu jiitu woon sax wàccutoon ci ñoom walam tadhari alfahisha fi qawmin xatta yuclinuu biha illa fasha fihim altaacuun wal awjaac allati lam takun madat fi aslaafihim alladina madaw loolu ay benn benn la ci tooñ yi dox diggante nit ki ak boroomam tooñ yi dox diggante nit ki ak boroomam nag lu ci dut shirk borom bi subhaanahu wa taala mën na koo jéggal ab jaamam waaye tooñ bi nga xam ne day dox diggante nit ki ak boppam boobu la ci jiitu mooy ñaawal gi nit ki di ñaawal jëmee ci boppam moo xam mu juddoo ci ay wax moo xam mu juddoo ci ay jëf yoo xam ne sharia ci boppam jëf jooju dafa génn day daytali sharia dafa génn daytali jikko ju rafet nga xam ne day nekk wax walla jëf joo xam ne su fekkoon nit ki mu nekk ca kaw mu wàcce ko sippi darajaam su fekkoon mu nekk ci suuf te bëgg a yéeg mu gàllankoor ko ba dootul mën a dem ca kaw loolu tooñ la goo xam ne diggante nit ki la ak boppam waaye bokk na ci li sunu boroom di wax ne tooñ la goo xam ne diggante nit ki la ak boppam mooy fekk li sunu boroom rëdd ne fii kat bu ko kenn jéggi nga jéggi ko jàll wa tilka hududullah wa man yataadda hudud allahi faqad zalama nafsa koo xam ne jéggi nga day daytali sunu borom yi limite yi nee na kooku na xam ne kat tooñ na boppam moo tax boroom xam-xam yi dañuy wax ne nit ki su fekkente ne day toggoo ay bakkaar ci mooy yàlla na xam ne moom ma ngay tooñ jëmmi boppam ja ndax loolee muy def day lu sunu borom tere te sunu borom nee na li ma tere ku koy def yaa ngi tooñ sa bopp boo demee ci alquran saxal na loolu nit dana tooj boppam wa daxala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi qaala ma adunnu an tabida hadihi abada ki nga xam ne dafa dugg àjjana ci déggiinu lenn ci borom xam-xam yi ànd nag koo xam ne dafa weddi woon yàlla subhanahu wa taala di ko wan ay xéewal yoo xam ne su weddiwutoon yàlla ëllëg lii la ko sunu borom di jox muy rëccu di wax ne man maa tooñ sama bopp nga xam ne wedd gi mu wedd yàlla moo sabab alkandeem ya nga xam ne moo ko xañ loolu yi nga xam ne moom la ko mbokka moom yi di wan alquran dañuy wan ne sunu borom subhanahu dañuy wax ne téere bii di alquran dama ko donnal sama jaam yi bi ma leen ko joxee nag am na ci ñoom koo xam ne zalimun li nafsihi la dafa ku tooñ boppam la am na ci ñoom muqtasid am na ci ñoom saabixun bil xayraati loolu day gën a saxal rek li ñuy wax ne nit dana tooñ boppam mu xam ko ak mu ñàkk koo xam thumma awrasna alkitaba alladina stafayna min ibadina fa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum saabixun bil xayraati bi isnillah kon nit dana tooñ boppam loolu daañu ci dikk cheikhul xadim radiallahu anhu boo demee ci téeréem bii di tazawudu sixaar da nga fa gis muy wax ne nit ki bu réeree diineem réere ay farataam te seetul ko xam mu jàngal ko ko na xam ne kat moom su alkoo moo alak boppam te kenn tooñu ko waaye moo tooñ boppam man kaana jahilan bi fardihi walam yasal fa nafsahu abada wa salam kon nit day tooñ boppam boroom xam-xam yi nag dañuy wax ne ci aaya bii fa minhum zalimun li nafsi mooy koo xam ne aw yiwam dafa lëng ay ñaawteefam bi suñ boroom di peese balaas yi jëfam balaas yi jëf yi ëllëg suñu boroom day teg say safaan teg say rafet rafet nee na ki nga xam ne nag ay rafet rafetam moo wat nee na kooku ki nga xam ne ay ñaawteefam ay ñaawteefam moo wat kooku mooy zaalimun li si loolu nag fa la càggante yam ndax ginnaaw boo jëfee benn ci aw ñaawteef sunu borom benn rek la la koy bindal boo jëfee benn ci aw yiw mu fulal la ko ba muy fukk nga sàggan nag ba sa ñaawteef yooyu nag ëpp say benn benn ëpp sa fukk-fukk yooyu loolu fa la sàggante yam ndax boo jëfoon fukki ñaawteef lum diis diis boo jëfee wenn yiw rek sunu borom fulal la ko ba mu doon fukk mu tolloog fukki ñaawteef yooyu kon ku xoole ba say ñaawteef ëpp saw yiw sàggante mënta féete kaw loolu moo tax sunu borom ne kooku mooy zaalimun li nafsi asaabiqu bil xayraat nag boroom xam-xam yi ñenn ñi dañ ne mooy koo xam ne moom aslan amul dara ci lu bon sax far moom lu baax rek la am am ñu ne mën naa am sax lu bon ay ñaawteef waaye lu mën a xew rek aw yiwam moom wat na ay ñaawteefam kooku dañ koy boole ci as-saabixu bil xayraat ki nga xam ne mooy muqtasid nag mooy ki nga xam ne bi ñu tegee balaas yi teg ay safaan ay ñaawteefam teg aw yiwam dañoo équilibré dara mënu cee wat sa moroom dañoo yemoo kon ki tooñ boppam ki tooñ boppam mooy ki sàggan ba aw ñaawteefam ëpp doole aw yiwam boo demee ci alquran da nga gis ne saxal na ñaari nettali yoo xam ne kenn ku nekk ci ñoom saxalal na boppam ak tooñam boppam kenn ki mooy balqiis gis nga bi sun boroom di waxanteeg moom bi demee ba gis dëgg ba tuub ba génn ca lam nekkoon ba sellal ak ngëmam lan la wax rabbi inni zalamtu nafsi man ndekete maa tooñ sama bopp ci weddi gi ma weddi woon yàlla waaye nag wa aslamtu maa sulaymana lillahi rabbil alamin bi mu demee ba yàlla gindi ko ba mu xam ne moom moo tooñoon boppam dafa génn ci la mu nekkoon ba set ci wicc ànd ak suleymaan jébbal boppam yàlla loolu dañ ciy dégg ne jamono bu nekk tooñkat bi saa bu demee ba xam ne moo tooñ boppam it na dellu ginnaaw ci tooñ gi na dellu ginnaaw ci tooñ gi delluwaat ci yàlla subhanahu wa taala yonent yàlla Muusa gis nañ ci barab muy ñaan boromam di wax ne rabbi inni zalamtu nafsi yow yàlla man kat maa tooñ sama bopp faghfir lii waaye nag maa ngi sàkku ci yow nga jéggal ma fa xafara lahu innahu huwa alxafuru rahim loolu nag boroom xam-xam yi dañuy wax ne gépp gàttañlu goo xam ne ci àq yàlla gàttañ lu ci àq yàlla goo xam ne waliyu wala ab yonent da koy askanale boppam loolu dañuy jàpp ne ak ñaan la ak ku toroxlu ci digganteem ak boroomam bu fekkee gisuñ benn tegtal buy wane ni lii bàkkaar la nituk yàlla buy wax ak gàttañlu ci digganteem ak boroomam te gisuñ firnde luy wane ne kat lii bàkkaar dañuy wax ne loolu ak ñaan la ak ku toroxlu digganteem ak boroomam ndax aarif billah dañuy wax ne toujours day tuumaal boppam ci ak gàttañlu ci jaamu gi ko war digganteem ak boromam moo tax fu mu toll di ñaan yàlla ak njëggal di ñaan yàlla mu di ko baal ci ay bàkkaaram te boo dee xool loolu muy tudde ay bàkkaar doo mën a gis benn tegtal buy wane ni def na bàkkaar loolu am na ay yonent yoo xam ne jaar nañ ci euh, seen diggante seen borom ci ñaan ci anam goo xam ne anam gu mel noonu la yonent yàlla yunus kenn la ci bi muy wax ne laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin boroom xam-xam yi dañuy wax ne dafay tuumaal boppam ci ak gàttañ gàttañlu ci digganteem ak boroomam donte am na ñu koy lay nag gis nañ yeneen i wàlli yoo xam ne ci ñaan dañuy dugg rek ci buntu toroxlu ak di tuumaal seen bopp ci seenu gàttañlu seen diggante ak seen boroom di ñaan yàlla ak di ko toroxlul kenn ci ñoom ku ñuy wax Kamil ibnu Ziyad gis nañ ci ak ci ay ñaanam bu daan ñaan di wax ne subhaanaka wa bihamdika salamtu nafsi wa tajarratu bi jahli wa sakantu ila xadimi dikrika lii wa minka alay ñu ne moom daf daan tuumaal boppam ci gàttañ gum gàttañ lu ci àq ji war digganteem ak boroomam waaye loolu it gis nañ ci biir njàngalem cheikhul xadim radiallahu anhu ci ay xasa itam xasida goo xam ne daanaka mën nañoo wax ne léppi xasida gi la nga ca xam ne sëriñ bee ko ca indi muy tuhfatul awaahi fi taxmiisi astaghfirullah la ca sëriñ ba def lépp day dugg ci bunt boobu ci buntu toroxlu baagi ca dayoo ba nga gis muy wax waxiin woo xam ne ñi ko xam ñëpp xam nañ ne lii toroxlul borom boroomam rekk la waaye gisuñ benn tegtal buy wane ne jege na loolu boo demee ci tuhfatul awaa fi taxmiis da nga fay gis fu sëriñ bi di waxee ne man nañu xasida gi lépp noonu la tëddee waaye ñu indi ci ñaari bayit ba aybi jaliyun fala yaxfa ala al uqala bu ne samay ayib nee na péng képp kuy boromum xel rek gis nga ko nëbbuwul ci yow moom kenn xamul ko ayib waaye dafay toroxlul boromam lam cay teg nag mooy njàngale mu am solo ma lakin rabbi sattaara al uyubi fala azalu taaliba sitrin qailan wajila astaxfiru llaha sattaara al uyubi ala ahli al-uyubi wa munjihim min an-niqam nga xam ne kon dañ ciy dégg ni moom dafay toroxlul boroomam ak di ñu ñoddi ci ñuy tuubal yàlla te ne yàlla rek moo mën a suturaal ab jaamam yàlla rek moo mën a jéggal ab jaamam gis nga dafa wax ne maa ngi sàkku ci sama boroom mi nga xam ne mooy sattaarul uyub moom rek moo mën a nëbbal nit ay ayibam du ma mukk ci sàkku ci moom mu di ma suturaal di sàkku ci moom ak njëggal moom mi nga xam ne ku am ayib moo la ko mën a suturaalal waaye moom mi nga xam ne moom rek moo mën a musal ab jaamam ci mbugal loolu ak toroxlu la ci beneen barab day wax ne xat saa ani xaflati wa xubxa ma amilat xat saa ani xaflati wa xubxa ma amilat sama càggante de metti na ma samay jëf yu ñaaw metti na ma ku ne xam na ni liñ xam ci Cheikhul Khadim histoire jàngale ko mooy ci ak njëlbéenam ba ci ak mujjam lépp ak farlu la lépp ak farlu la bañ na ko ba mag ñi nga xam ne ñoo jamonoon teeg moom ñépp dangay ngay gis ne bu ñuy bind ci moom ak di ko tagg ku mel ne sëñ Musaa Ka donte njëlbéenu sëriñ bi fekkewul loolu waaye xam na bu baax sëriñ bi da ngay gis ne moom dëggug Bàmba ak diineem jëpp bi jaaw ba yokku ko la wax kon moom bi muy ndaw ci zahir ba biñ mujj xam ci moom dara dëggu ak diine ak maandu ak ak sellal sañ-sañ ba yàqu ko kon bu nee xat saa ani xaflati kooku tawaadu la day toroxlul boromam rek wa xubhu ma amilat kaffi wa ma min jamici saxyi qad tarakat fa qultu lama rada nafsi gadan xashiyat astaxfiru llaha mima lam takun kasabat kaffi wa ma ktasabat fi mablagi lhulumi loolu mooy li ñuy wax ne arif billah walla nituk yàlla la muy wax ci digganteem ak boroomam loolu dafay tuumaal boppam ngir ak gàttañ loom ci digganteem ak boroomam fa mu toll xeeb na ko fa mu toll xeeb na ko ba tax na su rombee fi mu toll fa tolloon daaw loola moom ngir moom bàkkaar la ngir moom ak gàttañlu la loolu nag ak ñaan la ak toroxlu waaye wute nag xasida googu noonu la ko sëriñ bi mànge ba xasida gi jeex lépp da ciy toroxlul boromam lépp ak di ko ci tuubal rek ak di ko ci jéggulul loolu mooy tombum ñaareel bi ci tooñ gi nga xam ne nit ki daf koy tooñ boppam tombum ñetteel bi nag di tooñ gi nga xam ne nit ki daf koy tooñ moroomum jaamam ci seeni jëflante tooñ googu nag moo gën a siiw ci xeeti tooñ yi te moo ci gën a bari moo tax Sufyaan as-Sawri day wax ne taseeg yàlla indil ko juróom-ñaar fukki bàkkaar yoo xam ne sa digganteek moom képp ci la aju moo gën a woyo fuuf nga taseek moom indil ko benn bàkkaar boo xam ne sa digganteek sa moroomu doomu aadama kon bàkkaar yi lu bari bari ci sa digganteeg sa boroom moo gën a woyof benn bàkkaar boo xam ne da ngaa sa boroom bàkkaar boobu dox sa digganteeg sa moroomu doomu aadama moo tax tooñ googu dañ koy séddale ñaari xaaj xaaj boo xam ne ci wax lay aju xaaj boo xam ne ci jëf lay aju kon nit ki moom la muy tooñ moroomum jaamam benn muy ay wax walla muy ay jëf moom miy tooñ la muy tooñ ay wax lay doon walla mu doon ay jëf su ko defee ka muy tooñ nag fa tooñ nga di dal ci moom benn ci ab deram lay dal wala mu dal ci alalam moom la cheikhul xadim di wax ne thumma al mazalimu atat qismayni amwalan aradan bi gayri mayni tooñ moom ñaari xaaj benn nga tooñ nit ki ci ci alalam wala nga tooñ ko ci ab deram su dee ab deram mën nga ko caa tooñ tooñ goo xam ne wax la wala tooñ goo xam ne jëf la su dee alalam it kasalik bokk na nag ci tooñ doomu aadama moroomum jaamam ci ay wax mooy gaaral derum nit ki ci jëw jëw day lu sunu boroom aaye muy ak tooñ guy dox diggante nit ak moroomum nitam sëriñ bi jàngal ñu lan mooy jëw tudd sa moroomum nit wax ci moom loo xam ne bu teewoon doo ko wax wala bu woon boo ko waxee mu naqari ko sunu boroom nuróole kook nag lekk sa moroomum doomu aadama kon nit ki saa boo xamee ne mi ngi ci derub jàmbur mi ngi toog nekk ci derub nit di wax ci moom loo xam ne bu toogoon du ko wax wala bu ko waxee du ko neex na xam ne mi ngi def lu xaraam ci kabaa'ir yi la bokk te tooñ la goo xam ne day dox diggante nit ki ak moroomum nitam te bakkaar boobu moo gën a diis junniy bàkkaar yoo xam ne dox na sa diggante ak sa boroom te laale te te ajuwul ci mbirum doomu adama jëw nag mbokk yi ku ne xam na ni saafara maanaa tawat ju naqaree saafara ci doomu aadama yi la nit ñi dañoo dem ba dañu ko woyofal lool jàppeetuñ ko bàkkaar léeg-léeg sax nga gis koo xam ne mën nay jëw te du xam ne mi ngi jëw waaye jàppal ne lépp looy wax ci nit te bu teewee bu teewoon doo ko wax wala boo ko waxee mu naqari ko jàppal ne bu dee yaa ngi koy wax te nekk fa jëwango wattandikul loolu bokk na ci nag bàkkaar yi gën a bon waaye bokk na ci tooñ gi dox diggante nit ak moroomum nitam li ñuy tuddee rambaaj rambaaj fekk ay nit ñu toog di waxtaan nga tuxal waxtaan wi dem nettali ko keneen te fekk sa jubluwaay ci nettali bi du dara lu dul yàq ab diggante loolu bàkkaar la buy dox diggante nit ki ak moroomu nitam di ak tooñ waaye bokk na ci tooñ gi dox diggante nit ak nit ŋàññante ŋàññante ku ne xam na ni dafa bokk ci jikko yi gën a ñaaw ak saagante ku ne xam na ni dafa bokk ci jikko yi gën a ñaaw cheikhul xadim radiallahu anhu day wax ne min aqbahil xisaal attakaasub wa tasaabub nee na min aqbahil xisaali mi ngi bokk ci jikko yi gën a ñaaw kon bokk yi lu mat a wattandiku la ŋàññante nag mooy wax ci nit lu ñaaw mu wax ci yow lu ñaaw ndax ñaar maanaam jëf la joo xam ne day dox ci ab diggante dangay wax jëme ci moom ab safaan mu wax jëme ci yow ab safaan saaga nag mën nga koy def nit ki te moom du la ko delloo ku ne xam na ni bokk yi ñaar yii nga xam ne tooñ bu fés la ci diggante nit ak nit yaatu na lool ci jamono ji léegi nit ñi léegi baat bu ñaaw amul kuñ ko jomba teg ci sa kaw baat bu ñaaw amul kuñ ko jomba ci sa kaw saaga nga xam ne wax ju ñaaw rekk la amul kuñ ko jomb def léegi toll nañ ci tolluwaay boo xam ne dem nañ ba loolu ngacc na kersa gi nekkoon ci askan wi ndax jamono bu nekk yaa ngi dégg loo daawul dégg yaa ngi gis loo daawul gis ci ay wax yu ñaaw ak ay jëf yu ñaaw yoo xam ne nit da koy yëkkati jëmee ko ci moroomum doomu aadamam léegi sax nga gis ku ko yëkkati jëmee ko ci koo xam ne du ab nawleem ci genn wet xoolal li ñu jamono indil tey nga xam ne képp koo xam ne mere nga nit wala nga noonu ko am nga jumtukaay yoo xam ne mën nga faa daal di dem léegi loo ko bëgg wax ci ci lu ñaaw nga daal di ko koy wax adduna bépp jotandoo ci moo xam lu ñaaw loole loo xam ci moom la moo xam lu ñaaw loolee looy sos la moo xam ci jëmmam nga ko jëme moo xam ci ay waajuram nga ko jëme moo xam ci ay kilifaam nga ko jëme nga xam ne nit day jël kilifa nit di wax ci moom loo xam ne kenn mësu koo dégg kii def kii jëf-jëf ji nag nga xam ne mooy tooñkat bi fu mu mën a nekk ci kaw suuf ba jàpp ne am na kaaraange na xam ne kaaraange yàlla rek ko am te yàlla nga koy fuglu jumtukaay yooyu mu jëfandikoo ba mën a jëf jooju maanaam di wax lu ñaaw di saaga di ŋàññi di wax ab safaan jëmi ko ci nit jumtukaay yi mën a jëfandikoo ba bu noppee mu mën a war adduna bi te moom fa mu nekk kenn du ko xam na xam ne jumtukaay yi suñu boroom yi moo gën a efficace jumtukaay yooyu yàlla ngi fuglu léppam di jàkkaarloog moom te tooñ googu kat mooy li ma waxoon léegi benn tooñ bu mu ci tooñ nit ñëw ci kanam suñu borom ëllëg moo gën a diis mu tooñoon yàlla junniy tooñ tooñ goo xam ne diggam ak suñu borom rek la waaye bokk na ci tooñ gi dox diggante nit ki ak moroomum nitam maanaam nga xeeb ko xeeb doomu aadama loolu doy na sëkk ak tooñ wala fi nag dañuy wax ne nit ki boo ko xeebee mu yab la nit ki boo ko xeebee mu yab la cheikhul xadim radiallahu anhu bokk na ci dénkaane yi ñu wax ne moom la mujj dénkaane ci njaareem tombam yooyu bokkoon na ci sa mbokkum dëkkandoo bu ko bañ bu ko yab bu ko xeeb nit des ko xeeb am na sax barab bu muy wax ne saa boo xeebee ab xaj sax boo ko gisee xeeb ko ba jàpp ne yaa ko féete kaw xaj baa la gën rawatina doomu adama bokk na ci nag tooñ gi nga xam ne day dox diggante nit ak moroomum nitam muy tooñ goo xam ne jëf lay doon du doon wax ba ci jiitu te gën caa diis muy rey bakkan al qatlu bi gayri xaq rey bakkan boo xam ne sharia reyluwu ko alquran daf koy nuróoleeg koo xam ne day mel ne rey na askan wépp fa ka annama xatala naasa jamian ni nga xamee ne boo dundalee benn bakkan mel nga ni ku dundal dundal askan wépp ci tiyaaba jële sunu borom di bindal waaye boo reyee benn bakkan te teguwul ci àq sharia mel nga ni ku rey askan wépp sunu borom daf koo araamal ci ñun dafa araamal ci ñun rey bakkan wala taqtulu nafsa allati harrama allahu illa bil xaq kon saa bu nit am na lu war a tax ñu rey ko ci lislaam lislaam am na ay jëf yoo xam ne bu ko nit jëfee dañ ko war a rey nit ki nag su jëfut ci jëf yooyu jenn jëf kon kenn waru ko rey waaye bokk na ci tooñ yooyu nga xam ne day dox diggante nit ak nit xeeti tooñaange yi nga xam ne day bi ci biir famille loolu dañ koy tàmbulee ci njaboot léeg-léeg nga gis tooñaange bàyyi ko ci ñoom dem ci seeni waajur nit saa bu daggee digganteem ak ay waajuram li ñu tudde al loolu tooñaange la goo xam ne dox na diggante nit ak nit ndax la la suñu borom digal ci moom mooy nga topp ko la la suñu borom digal ci say waajur mooy nga topp leen kon soo leen daggee na nga yëg ne tooñaangee ngoog nit nag mënta am walla mu xam wala mu man ba tax mu gis ne war naa mën a dagg ay waajuram ndax lu man rek ñoo ma waajuram wu jigéen na yég ne moo sonne mbiram ba mu am dëgëru mën a doxal boppam mën a demal boppam waajurum wu góor saytu ab yaram ba mu defaru ba xam ba bu dee mën a am muy am kon nit lu mën a am ak lu mën a xam ak nu mën a mel warul dagg ay waajuram li ko alxuraan digal mooy mu topp leen mu topp leen te di leen toppatoo jamono bu nekk bari na nag tooñaange yoo xam ne nit ñaa ngi dagg seeni waajur léeg-léeg nga gis gone goo xam ne dafay wan ginnaaw ay waajuram buñ ko digalee du def buñ ko teree du bàyyi kilif téefam du leen ko jox mi ngi am ci góor ñi di am ci jigéen loolu tooñ la goo xam ne day dox diggante nit ki ak moroomum doomu aadamaam waaye bokk na ci tooñ gi nga xam ne day dox diggante nit ak nit ci jëf te aju ci biir famille yi muy tooñaange goo xam ne lislaam daf koy fësal jamono bu nekk muy tooñ goo xam ne boroom kër yi daañu ko tooñ seeni soxna loolu nag mën naa mën naa doon àq ju ñu leen ameel ci seen can wala ci seenu dund walla ci seeni koddaay wala ci seenu nekkin loolu it boroom kër bu nekk war naa bàyyi xel ne tooñaange dana bàyyi koo foofu ci digganteem ak soxna soos yi nga xam ne moom la ko yàlla booleel ni nga xamee ne it soxna yi am na tooñaange guy bàyyikoo ci ñoom di dem ci seeni borom kër muy ñàkka maanaam gàttañ lu ci seeni àq maanaam gàttañ lu ci sa àqi boroom kër ak ñàkka nongu ngëneel li yàlla fab jox ko boroom kër bi mu tegu ci sa kaw ar rijaalu qawwaamun ala nisa bari na ci soxna yi ñoo xam ne ñoom it loolu bàyyeetuñ ko xel loolu tooñaange la guy dox diggante jigéen ak boroom këram bokk na ci tooñaange yooyu it diggante wayjur ak njabootam loolu nag dañ ciy jiital njaboot bu jigéen gi nit mën naa yor ay doom ñu toll ci war a am borom kër mu téye leen bañ leen a maye su fekkee ñàkk a maye googu nag teguwul ci lenn loo xam ne sharia mën na koo nangu loola àq la ju dox digganteem ak doomam yooyu waaye bokk na ci tooñ gi nga xam ne day dox diggante nit ak njabootam dañ koy wattandikulu mooy nit lu mu mer-mer bu mu ñaanal ay doomam ab safaan bu mu jëflanteeg ñoom jëflantiin wu dëgër wu tar woo xam ne dafay faxas man yërmande digganteem ak ñoom loolu dañ koy wattandikulu te ak tooñ la léegi léegi nit jaawale ñaari mbir yoo xam ne dañoo jege te wuute muy li ñuy wax kilifteef ki nga xam ne yaa ko yilif jamono bu nekk yaa ko yilif waaye nag kilifteef bokkul ak ak noteel kilifteef moom lislaam daf ko jàngale ak noteel nag mbirum buur la ak noteel mbirum buur la kilifteef am na ay àq yoo xam ne moom daf ko am ci yow am ay war-war yoo xam ne daf laa war ci moom lislaam jàngal la ko mu leer nàññi loolu moom neex naa xam kon way jur yi ñuy wattandiku jëfandikoo noteel googu ba koo tudde kilifteef te fekk du kilifteef waaye bokk na ci tooñ googu di dox ci diggante nit akum njabootam mooy amug njaboot ba noppi di leen gënale amug njaboot ba noppi di leen gënale loolu ak tooñ la boo xam ne dafay bàyyi ko ci wayjur dem ci ay doomam Nu'maan ibnu Bashir radiyallahu anhuma day nettali wax ne sama sama yaay dafa ñëw ci sama baay ne ko damaa bëggoon moom Nu'maan mii nga may ko dara ci sa alal nee na sama baay daal di d'accord ak moom ci loolu daal di yëkkati dara ci alalam di ko jox mu ne ko déet lii kay dañu dem ba ca yónente bi alayhi salaatu wasalaam mu seere ko nee na bi ñu àndee ba ci yónente bi ma daal di koy wax li ñu tax a ñëw moom waajur wu góor bi moom bàyyi Nu'maan wax yonente bi alayhi salaatu ko yaayam dafa sàkku ci man ma may ko dara ci sama alal bi ma ko ko joxee nag mu ne dafa bëgg ñu ñëw ba ci yow nga seere ko yonente bi alayhi salaatu ne ko ndax am nga beneen doom bu góor bu dul moom mu ne ko waaw mu ne ko kon demal nga wan ko ko kookee waaye man bu ma seereloo ak jeng bu ma seereloo ak jeng kon ñu gis ne njaboot gi nga jaboote faw nga jëflanteeg ñoom ci ak maanu ndax cër bi yàlla am ci yow moo ëpp doole cër bi nga am ci njaboot gi te yàlla ngi jëflanteeg yow ci ci ak maandu ginnaaw yàlla ngi jëflanteeg ci ak nag te moom cër bi mu am ci yow amoo ko ci njaboot gi cër bi nga am ci njaboot gi deesu ko xeeb waaye faw nga jëflanteeg ñoom ci ak maandu am na tooñ goo xam ne it dafay jóge ci nit jëm ci moroomum nitam loolu nag mooy tooñ gi nga xam ne boroom daraja yi ñoo koy tooñ ñi nga xam ne ñoom la ñu jëflanteel ñi ñu tudde asxaabul wilayaat wal manasib ñi yàlla jël fab mbooloo teg ci seen ron moo xam kilifa diine la moo xam kilifa aada la kum ci mën a doon ña nga xam ne ñoo nekk ci sa ron nga war leen a sàmm ñàkk leen a jox seeni àq te càmm ga loolu ak tooñ la gu dox sa ak ñoom kon raaya bi nga xam ne moom la yonente bi alayhi salaatu salaam di wax ne kenn ku nekk war nga ko sàmm ñàkk sàmm càmm googu ak tooñ la ci diggante nit ki ak ñi nga xam ne ñoom la ko yàlla booleel boroom xam-xam yi wax nañ ni bokk na ci tooñ googu mbooloo mi la yàlla jox kenn ku nekk lam man nga loo ko ko te bañ def defloo nit loo xam ne am na ku ko ko gën a man te gën koo am kàttan te gën ko caa sawar bu liggéeyloo nit liggéey boo xam ne am na comme ca yamal benn àq te kooko ma gën koo man la koy def loo su boobaa loolu ak tooñ la sa digganteeg liggéeykat boobu waaye bokk na ci tooñ gi dox diggante nit ak nit nga xam ne mën naa dem ci diggante kiy liggéeylu ak ki muy liggéeyloo liggéeyloo nit ba noppi bañ koo fay liggéeyloo nit ba noppi bañ koo fay loolu tooñ gu mag a mag la goo xam ne yonente bi alayhi salatu wasalaam da cee wax abu hurayrata nee na yonente bi daa wax ne ëllëg yowmal xiyaam am na ñett ñoo xam ne maay taxaw layal leen ci seen digganteeg ña nga xam ne ñoom lañuy ñuy jëflanteel ak seen digganteeg seen borom ñooñee nag bokk na ca koo xam ne kii danga nga koo jël di ko liggéeyloo mu liggéeyal la ba noppi nga bañ koo jox ak payam loolu bokk yi lu mat a wattandiku la kon kuy liggéeyloo nit ku ne te nga xam ne liggéey ba da ngeen a sartante ak pay la yonente bi jàngale mooy bu noppee ci liggéey ba balaa balaa aw ñàqama fendi jox ko ak payam ñàkk gaa fay nag moom ak tooñ la gu dox sa digganteeg moom waaye bokk na ci tooñ yi nga xam ne day dox diggante nit ak nit di liggéeyloo nit togg ko ay mbir yoo xam ne bokk bokkuloon ci contrat bi nga xam ne moom ngeen signé léeg-léeg nga gis ñoo xam ne bu ñuy liggéeyloo nit bu ngeen xasee tàmbali rek lu seen xel daj ñu daldi ko ciy bëgg a dugal te fekk bi ngeen di jëflante liggéey bi dafa am fu mu tàmbulee am fu mu yem kon lu yàgg-yàgg léggéey bi na yem foofu saa boo ci bëggee dugal loo xam ne bokku ci woon loolu day daal di nekk ak tooñ yonente bi alayhi salaatu wa salaam day wax ne seen liggéeykat yi ngeen yor ci seen biir kër mën naa doon sax ay jaam na ngeen yëg ne ñooñu ñooy seen alal ji nga xam ne yàlla daf koo jël teg ko ci seeni loxo waaye nag seeni mbokk lañ yoo xam ne lépp lu ngeen di lekk na ngeen ko bokk ak ñoom lu ngeen di sol na ngeen ko bokk ak ñoom bu leen leen togg lu ñu mënut bu leen leen togg coono ku ngeen nattu ba gis ne kat kii li ngeen bëgg mënu ko bu leen ko teg menn mbugal waaye bu dee jaam boo xam ne mën ngeen koo jaay ngeen jaay ko te bañ koo mbugal bokk xoolal ñu bari ci liggéeykat yi nii yonente bi aleyhi salaatu salaam digle maanaam def nawle ki nga xam ne moom ngay liggéeyloo def ko ab nawle mën a bokk ak moom lekk bokk ak moom ak col bañ koo teg lenn loo xam ne lu koy not la bañ koo teg lenn loo xam ne lu mu tële la soo nattoo nag ba gis ne ni nga bëggee mënewu ni nga seet nu mu gën a rafete ngeen tàqali ko ci anam googu waaye bañ koo jàppe nag jaam boo xam ne rek yaa koy fay weer waaye weer woowu nga koy fay mayoo ko ko saraxoo ko ko te aw ñaqam la la wettil nga doog ko ko jox kon moom leew na ko lool kon ki la wettil aw ñaqam nga yëkkati sa wërsëg jox ko taxul nga doon ab sangam ndax loolu nga ko jox daf ko jënd dafa liggéey ba noppi nga fay ko kon liggéey ba lum xeebu xeebu ci yow la koy fay lum néew néew ci yow ci sa gis-gis du tee jàppal ne as goro ngoog soo xam ne ala kulli haalin lu jamono yàgg-yàgg sam nawle rek la bokk na ci tooñ yooyu lekk alali jàmbur ci lu dul àq sharia ci lu dul benn àq bokk yi xool leen nit ñi léegi la Sufyaan as waxoon jamono ngi ñëw joo xam ne nit ñi nuñ mën a amee alal rek daañu ko fàggoo moo xam lu dagan la moo xam lu xaraam la léegi nit ñi dañoo toll ci jamono boo xam ne daanaka alal la ñuy jaamu nga xam ne ku ñu mën a lekk sa alal daañu ko lekk ak anam guñ ko mën a lekk lekk alali nit ki nag ci lu dul benn àq ak tooñ la sa digganteek moom tooñ gi ñuy wax nag nit ki mën naa nekk fii ci àdduna waaye fal ko lool waaye ëllëg yowmal xiyaam bu taxawee ci kanam boroomam boroom xam-xam yi nee nañu benn tooñ képp bu dox digganteem ak nit ki moo gën a diis nga ñëw taseeg sa borom indil ko juróom-ñaar fukki tooñ yoo xam ne sa digganteeg moom la kon lu mat a ko waaye bokk na ci tooñ yooyu lekk alali nit ñi ci ak neen ci ak neen loolu suñu boroom daf koo araamal laa taakulu amwaalakum baynakum bil baatili nit ki waroo lekk alalam ci ak neen war naa am fu mu tegu war ngeen a jëflante war ngeen a liggéey war ngeen a jëndante ak jaay nga doog a mën a lekk alalam waaye lekk alal nit ki ci ak neen suñu borom daf ko xaraamal te ak tooñ la goo xam ne tooñ nga sa borom tooñ nga sa moroom am na ci xeeti tooñ yoo xam ne dafay làmboo ñaar da ci am goo xam ne day dellu sa digganteeg sa borom ngir xëtt nga digalam waaye nag day dellu sa digganteeg sa moroomu doomu aadama ndax ci kawam la tooñ gi dal bokk na ci tooñ yooyu nga xam ne suñu borom daf ñu koo aaye muy lekk alalu nit ñi ci ci neen boroom xam-xam yi dañoo wax ne sàcc ci la bokk sàcc sàcc ci la bokk jël alal nit ki maanaam nëbbatu ba jël alal nit ki ci lu mu yëgul loolu àq la joo xam ne ju mat a watandiku la li ñuy wax sàcc sàcc nag dafa bari ay xeet waaye li ñuy wax jar ci la bokk maanaam wor nit ki ci lu wuuteeg la am li ñuy wax carte ci la bokk carte nag ni ko jamono xame woon bu njëkk gën naa yaatu léegi jamono ji ñu toll jafe na nit ki jumtukaay yi nga xam ne ñu ngi koy jëfandikoo ak xeeti liggéey yi nga xam ne ñu ngi koy liggéey lu ci baree bari dañ koy def ci anal goo xam ne bu ñu ko xoolee ba ci biir carte da ciy tàbbi te nit ñi moom nu ñu mën a amee alal rek ñu ma ko waxee léegi ci waxi Sufyaan ak sawri jooju seetuñ daggan ma seetuñ araam nu ñu mën a amee alal baax na te carte lu mat a wataliku la ndax lañ cay amee du alal ju lew te riba la waaye bokk na ci tooñ yooyu nga xam ne nag day dox diggante nit ak nit lekk alali néew doole yi ak jirim yi suñ borom daf ko aaye nee na loolu ak tooñ la inna alladina yaakuluuna amwaal alyataama zulman innama yaakuluuna fi butunihim naaran wa sa yaslawna saira yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci tooñ gii nga xam ne nit day lekk alal nit ci lu dul teeyu bakkanam lekk ko ci ak neen te boroom xam-xam yi lim ci yu baree bari dañ caa boole li ñuy tudde ger ger jox nit sa alal te fekk ci sa xol amul yéene ju sell joo xam ne da nga ko koo jox ngir jëmmi yàlla am na sabab bu tax nga jox ko ko boo xam ne loolee nga ko koy jox lool loolee tax nga jox ko ko moom wërta jëfandikoo alal ji ngir defale li nga bëgg dafa war a liggéey rek la nga xam ne moom la ko yoon liggéeyloo waaye mu encaissé sa alal ngir defal la li nga bëgg loolu yonente bi alayhi sa salaam day wax ne moom ki joxe alal ji ak kam ko jox ñëpp yàlla rëbb na leen la laana allahu arrashi wal murtashi bokk na ci jar bu ñu nee jar nag mooy nëbb ci sa marchandise mi ngay jaay lu wuuteeg dëgg ba noppi nag di woote lu wuuteeg la nekk ca marchandise ma loolu misaal mi gën a misaal mi gën a jege rek ñi nga xam ne dañuy jaay lem dañuy jaay lem di ci rax lu mel ne ndoxum sump nga xam ne li ngay gis lépp lem nga koy teg te fekk fil xaqiqa moom yoroo lem loolu yonente bi aleyhi salaam da koy aaye am na ñoo xam ne dañuy wër di jaay meew lañ yor sax mën naa am mu tudd meew waaye ñoom dañ lay wax ne meew mi kat meew piir la fekk bokkut ak yow meew mi nga soxla mën naa am sax meew mi nga soxla amoon nañ ko waaye di caa dolli ndox loolu lépp it yonente bi alayhi salaam daf koy aaye léeg-léeg nga ku ñëw ci daral bi soxla am xar moo xam ne day bëgg xarum mel ni melo am ku ko am waaye xar moom am toj na ci barab mu mu weexal li ca ñuul ba dootul fésati wan la ne lii xarum mel melo la loolu it ba tey xeeti wor la kon nit ki jamono bu nekk lim yor te di ko jaay na ko bàyyi ni mel lépp loo xam ne daal bu fekkonte ne maanaam mépp marchandise moo xam ne jaay nga ko nit nëbbu ca nag loo xam ne soo ko ko leeraloon prix ci fay du ko ci man wala sax day bàyyi njënd ma xamal ne loolee arab moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam ne man ghashana fa laysa minna képp koo xam ne yaa ngi jar bokkoo ci ñun lu mat a wattandiku la carte wax naa ko léegi dafa lëkkaloog ay jëf yu ñaaw yoo xam ne sunu borom daf ñu koy aaye ndax lan ñu tàbbal mooy ak noonoo lay duggal ci sunu biir akum bañeel carte nag wax naa ni ay xeet yu baree bari la bari na ci yuñ koy defee ba ci xeeti xew-xew yii di xew télévision yeeg rajo yeeg yëpp ay jumtukaay carte ngi ci yoo xam ne nit ñi faw ñu di ko wattandiku te di ko bàyyi xel nañ ko gëstu ji ba xam ko lépp luy carte ñu bañ caa tàbbi tooñ nag am na ay lor ñu ñëw ci lor yi ab tooñkat du am hidaaya maanaam njubug suñ boroom gi nga xam ne suñ borom nee na képp ku ko nekkee ci kaw suuf doo texee di doo sànk te doo gàccewu ëllëg ab tooñkat du am njubug yàlla googu te loolu it waxi yàlla la inna allaha la yahdi al qawma zalimin ab tooñkat du am hidayatullah loolu lor la jullit bu ne ci kaw suuf nekk fi loo xam ne njubug yàlla gi lu yàgg-yàgg doo ci bokk loolu lu mat a wattandiku la ab tooñkat du texe sunu borom nee na innahu laa yuflixu zaalimuun li wiir te wër mooy ab tooñkat moom du texe bu mukk ab tooñkat sunu borom day wàcce ci kawam am rëbboom rëbbum yàlla rëbbum yàlla nag yàlla nañ ci yàlla musal yawma laa yanfau zaalimiina maadiratuhum wa lahum laanatu wa lahum suu deer rëbbum yàlla yàlla nañu ci yàlla musal mbooleem xeeti tooñkat yi sunu borom nee na rëbbum sunu boroom ñeel na leen waaye ñaawu mujj sax ñeel na leen ab tooñkat sunu borom daf koy xañ li ñuy tuddee al shafaa du am ku koy rabbu ëllëg du am ku koy rabbu ëllëg ku ne xam ne ne ëllëg yow yowmal xiyaam kenn ku nekk soxla nga ko la rabbu tinu la sa digganteeg sa borom anbiya u yi ak mursaluna yi ak awliya u yi boo demee ci miimiye bu cheikhul xadim radiallahu anhu gis nga nam fay leeralee ëllëg yowmal xiyaam nit ñi di tiite seen diggante ak seen borom amul jaaxle ba duñ mën a taxaw jàkkaarloog yàlla ngir ràmm seenu xeet waaye yonente bi alayhi salatu wasalaam sunu borom dana ko may kàttanu mu mën a ràmm aw xeetam ràmm moo mii nag ab tooñkat du bokk ci ña ñuy ràmm maa lil zalimina min xamimin wala shafiin yutaa ab tooñkat amul kenn ku koy ràmmu ëllëg bokk na ci lor yi nga xam ne tooñ daf koo amee mooy moom tooñkat bi ci boppam la ko kam tooñ di ñaanal day dal ci kawam mu xam ko ak mu ñàkk koo xam du ko moy mukk ndax yonente bi aleyhi salaatu salaam saxal na ko wattaqi daawata al masluum fa innahu laysa baynaha wa bayna allahi hijaab wattandikul ñaanu ku tooñ ndax digganteem ak boromam amul benn kiiraay bu fi dox loolu bari na ay xisas yoo xam ne ci tooñ da ngay gis ne ki tooñoon ba jàpp ne am na doole kam tooñ ñaan ko yàlla bàyyee ko yàlla sunu borom daal dina koy fayul ca xeetu tooñ nga nga xam ne ca la ko tooñ bokk na ci lor yi nga xam ne tooñ daf koo làmboo li ñuy tuddee kaaraange ci kaw suuf ak tooñ da koy yëkkati ci kaw suuf bu tooñ ci saaroo rek kaaraange dootul amati saa boo déggee ñu naan sécurité booba am na leneen lu am loo xam ne moom lañuy ñuy tudde insécurité kon bu ak maandu amee tooñ bañ a am bu tooñ amee ak maandu amatul mbir yi daal di jaxasoo maandu gis suñu borom doxale ci suñu diggante ñàkk sax bu mu ñàkk sax ci mbindee fi yàlla yi nga xam ne ñoo nekk ci àll bi wala ñu nekk ci géej gi moo leen jural ku man sa moroom rek daldi di koy fitnaal doomu aadama nag sunu borom saxal gi mu saxal ci ñun ak maandu mooy tax sécurité am ci suñu biir tooñ nag bu ti tisaaroo sécurité dootul amati moo tax ki gëm yàlla te ngëmam googu boolewu ko ak tooñ sunu borom nee na kooku fu mën a nekk day am sécurité fu mën a nekk day am hidayatullahi googu ñu waxoon léegi alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulm ulaika lahum lamnu wa humul muhtadun waaye tooñ dafay sabab bala ak mbugalum yàlla tooñ daf koy sabab bari na ay dëkk yoo xam ne sunu borom alag na leen loko ko sabab mooy wahiya zalima wahiya zalima tooñ guñ nekkee ci biir dëkk ba moo tax sunu borom alag alag dëkk yooyu bari na dëkk yoo xam ne sunu borom mu waaxasa na leen maanaam jëflante na ak ñoom mbugal leen te la ko waral moom it wahiya zalima inna axdahu alimun shadid kon borom bi subhanahu wa taala lam waxoon ne du tooñ nit ñi waaye nit ñi ñooy tooñ seen bopp te mbugalum yàlla miy dal ci seen kaw mi ngi sababoo ci seenu moy ak seenu tooñ mbooleem dëkk yi nga xam ne alag na leen ci loolu yi la bàyyi ko muy tooñ googu tàmbulee ci ba sunu borom di wax ni fa ka ayin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalima fa hiya xaawiyatun ala urushiha wa biirin muattalatin wa qasrin mashid nga xam ne kon seenu tooñ ci li leen borom alage mu mel ne kon bokk yi su fekkonte ne bëgg nañoo tënk lii nga xam ne mooy tooñ mii ñu doon wax mooy ñu xam ne ñun ñëpp ñoo war a maase ci xeex tooñ tàmbalee ko nag ci ñi nga xam ne ñooy kilifa yi sunu boroom teg ci kaw askan wi muy kilifay diine di kilifay aada kenn ku nekk la nga yilif mu néew mu bari nga fexe ba feeñal ca loolu ak maandu man caa xeex li nga xam ne mooy tooñ tàmbalee ci ki nga xam ne moo ne ci bopp réew mi teg ci jëwrinam teg ci jëwrin yi ci des teg ci ñeneen ñi nga xam ne dañ leen a teg ci ay barab rawatina attekat yi ñi nga xam ne ñooy atte nit ñi ñu bàyyi xel ne kàttan gi leen yàlla jox ñoom borom daraja yooyu kattan gi leen yàlla jox fii ci àdduna ak doxaliinu àdduna sañ-sañ yi mu leen jox lu mu rëy rëy yàlla moo leen ëpp doole te fu fi nit nekk rek nga yëg ne foofee kat nit a fa tuxoo nga sañc fa te da fa tuxoo ëllëg keneen sanc fa te kàttan ak sunu borom doole loolu yi mu la jox te yàlla ngi seere lépp di jàkkaarloog lépp su ko defee ñi nga xam ne yi ñoo yore kaaraange doomu aadama yi ñoom it ñu bàyyi xel ñaari mbir xam ne ne ak maandu ci la lépp mën a saxe waaye tooñ ci la lépp mën a na saxe kon tooñ kenn ni mënu koo xeex waaye mbooloo koy xeex askan wee koy xeex tàmbule ci ñi ci njiit yi di wàcc ci ñi ñu jiite ba ca ka gën néew ay at ñëpp maase fexe ba kenn ku nekk xam lan mooy tooñ nga wañ ko ginnaaw xam lan mooy ak maandu nga teg ci sa tànk loolu moo mën a indi jàmm ci am réew ndax borom bi subhaanahu wa taala wax na ko léegi tooñ dafay yëkkati sécurité maanaam dafa yëkkati kaaraange fépp fu mu am rek kaaraange lu dafa amati waaye fépp foo xam ne ak maandu am na nag maandu googu nga xam ne suñu borom da koo melawoo doxale ko suñu digganteeg moom sàkku ci ñun ñu doxale ko suñu digganteeg suñu bopp suñuy bopp suñuy jëmm waaye doxale ko suñu digganteeg suñu moroom yi doomu adama faaw ñu taxaw ci loolu taxawaay boo xam ne moo mën a saxal ci kaw suuf maandu goo xam ne dana tax jullit bu nekk mën a jaamu boroomam subhaanahu wa taala du am lu muy tiit ci bakkanam du am lu muy tiit ci alalam du am lu muy tiit ci njabootam du am lu muy tiit ci liggéeyam du am lu muy tiit ci nam bëgg a liggéeyee ëllëgam yowmal xiyaamatil akbar loolu mooy tënk bi nga xam ne moo gën a gàtt ci ñoo xam ne daal tooñ kon noonu lañ ko war a xeexe di ñaan nag borom bi subhanahu wa taala moom mi nga xam ne moom rek am kattan mu saxalal ñu ko fii ci sunum réew moom maanu li nga xam ne mooy tooñ mu ñoreel ñu ko dàqal ñu ko jëleel ñu ko ci réew mi ba nga xam ne lim bëgg ñu dund ko ci al adl mën a am al amn wal istiqrar loola daañu ko am kon ñu ngi jégalu ñëpp di ñaan borom bi subhanahu mu defal ñu ak njéggal salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. salaamaaleykum wa rahmatulah. macha allah jàpp nañ ne tànn tomb bi teg ko ci sa loxo ngir nga jottali ko leeral ko nit ñi amees na ci lu kawe jot ndax xamal nga ñu bu baax tooñ mooy lan ak xeeti tooñ yi am yépp ak loraange ji nga xam ne mooy juddoo ci tooñ nga leeral ko ci leeralin wu jot woo xam ne daanaka rek xaw naa matale kon ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax a baax mu mel ne niñ ko dindee woon ci njalbeen suñ seexu naa tomb bi daf ko séddale woon ci juróom-benn tomb juróom-benn yépp dikk na ci ba ci njëkk mooy xamale nañu lan mooy tooñ mu ne tooñ mooy mbir nga teg ko fudul barabam ci misaal yàlla dañ ko war a jaamu nga bañ koo jaamu wala ndigalul yàlla dañ ko war a jëfe nga bañ koo jëfe kon jël nga mbir teg ko fudul barabam nit ki àqam dañ ko ko war a sàmmal nga jalgati àqam loolu teg mbir fudul palaasam la kon loolu tooñ la dikkal lañu itam alquran nan lañu jàngalee tooñ nan lañu ci xuppe fu ñu suñ boroom di xamalee ne moom du tooñ te bëggul jaam ñi di tooñante ci seen biir andi na ci ay aaya yu baree bari naka noonu ci hadis naka noonu ci hadis andi na ci aaya yu bari ak hadis yu bari yuy wane ne suñ boroom dafa xaramal ci jaam bi muy tooñ waaye da koo njëkk aramal ci boppam inni xaramtu sulma ala nafsi na ko mu muharrama dama araamal ci sama bopp tooñ araamal ko ci seen diggante kon bu leen tooñante waaye suñ seexu naa ñëw na ci xeeti tooñ yi am faramfàcce ko bu baax mu seddale ko ci ñetti xaaj mooy tooñ gi dox diggante nit ki ak boroomam maanaam tooñ gi jaam bi di tooñ boroomam moo wax ne sax tooñ googu jaam bi bu demee ba ñemee tooñ boroomam tooñ geneen yeneen tooñ yépp foofu lañuy juddoo ndax yàlla ni mu toll kàttan gi mu am sañ-sañ bi ak màgg gi su jaam bi demee ba am fitu tooñ ko su boobaa tooñ kaneen boppam wala moroomam du nekk lu jomb ci moom kon day mel ne ndeyu tooñaa nga yépp mi ngi juddoo ci tooñ boroom bi ndax su ko bor su ko jaam bi ñemee rek amul ku muy ragalati kon waaye tooñ gi nit ki di tooñ boppam ak tooñ gi nit ki di tooñ moroomam nit ki tooñ gi muy tooñ boppam mooy jëpp jëf ju doomu aadama def te loraange képp moo ko cay fekk wala perte su boobaa boppam la ndax benn doomu aadama boo xam ne yàlla daf laa bind ngir nga lor sa bopp wala nga sanq sa dund amut ku nekk suñu borom daf laa bind ngir nga jariñu ba noppi jariñe kon saa yoo xamee ne lor nga sa bopp wala nga def loo xam ne ak neen la goo xam ne dara ca njariñ du la du ca juddoo loolu tooñ sa bopp la waaye itam xeeti loraange yi nga xam ne moo juddoo ci tooñ yépp suñ seex naa wax na ko ba ca ba ca gën a tar mooy tooñ fu mu am kaaraange du fa am te kaaraange mooy indi jàmm te jàmm mooy tax nit ñi mën a def santaane bi yàlla ci kaw suuf waaye bokk na ci loraangay tooñ mooy day tax a gàtt fan tooñ day tax gàtt fan sëñ Tuuba am na ku ñëw kooku masalla wax ne ko dama bëgg a gudd fan sëñ bi ne ko da ngay maytandikoo tooñ sa bopp maytandikoo tooñ sa morom soo maytandikoo tooñ sa bopp maytandikoo tooñ sa morom rek mën naa am nga gudd fan waaye tooñ day day day waral dugg sawara day sabab dugg sawara wal xiyaasu billaahi taala sëñ Tuubaa ci majmuatul kubra wax na ne na ngeen moytandiku di xëccoo koo xam ne yàlla daf koo dénk mbiru nit ñi daat ne xëccoo ko yàlla dénk mbiru nit ñi tooñ la te tooñ day waral dugg sa wara am na foo xam ne ci majmuwa bi dafa wax ne nit ki tooñ du ko jural dara lu dul lor tooñ du jariñ kenn dara day loraate rek daad ne lépp loo xam ne danga nga koo fàggoo ci ak tooñ ak tooñ dana ko jëlewaat ci sa loxo nanga ko tooñee woon kon tooñ lu ñàkk bénéfice la lu ñàkk maanaa la lu ñàkk njariñ la waaye tooñ gi gën a mag nag mooy tooñ goo xam ne nii dafa matale ñépp mooy tooñ aw askan wala tooñ aw xeet wala tooñ mbooloo ndax tooñ lu mu gën a yaatu gën a bari lor ni mu ko jeexalee rek mooy ñépp war a taxaw ci xeex ko ndax tooñ dana juddoo ci kaw tooñ ndax saa yu nit ki gisee ak tooñ man koo dakkal te dëkkalu ko rek tooñ na ci kaw ak tooñ moom itam kon sëñ seexu naa sant nañ la bu baax a baax a baax e, di jëfalaat bu baax waa mu daaira muqaddamatul xidma ci liggéey bu am solo bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci weer wi di sant mbooleem e, ñi fi teew ci taskatu xibaar yi di ci jiital seen bi nga xam ne mooy seenu jumaa ji di MKTV ak Lamp Fall ak mboolem yeneen seen yi nga xam ne teew nañ fii yëpp ñu ngi leen di sant bu baax te di leen gërëm mu mel ne tomb suba bi nag dafay jëm ci li ñuy tuddee al ijaara wa ahkaamuha fil islaam maanaam lu jëm ci wàllu location luye ak yi demee noonu yépp ak lu xeetoog moom suba moom la ñuy waxtaane insha allahu taala ki koy waxtaane mooy sëriñ Souleymane Badiane moom lañ ciy àndal suba insha allah kon ñi ngi jaajëfal ñëpp di ñaan suñu borom may ñu ñu fekkewaat ko suba ak jàmm insha allah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu